ñu bari yëkkati woon ay kàddu ne que dafa daw laaxatu ci Ziguinchor moo tax ñëwul. Ah, soo ma mayee mën naa leen génneel vidéo boo xam ne nii qui prouve le contraire Sonko ñàkk koo xam dinga nga ci moom bakkaar bu rëy rëy rëy te bu ëllëgee je le dis tout haut mu ëllëgee surtout ne moytu di bakkaar ci Sonko li tax xam nga nit di nga ko gis nii rek muy dox di dem te doo xam ban nit la te ci misaal Sonko tey ci misaal ni ma leen ko waxee bu doon taw mu xëyn ba nga xam ne day ñuul kook li ñu gisagum ci moom taw boobule mooy wicc wiccal wicc wiccal bokkul ak wis wicc wiccal day def ay gouttelette yu sew a sew a sew ko mënul tooyal bu baax nit nit ñi jaar nañ ci loolu ba tey mais wis moom bu ko defee rek xamal ni taw a ngi dikk kon moom wis jege na taw mais loolu yëpp dañ ko dundagul ak ko ba xam ki mu doon bés bu ko yàlla mayee réew mi am naa yaakaar ni su booba dinañ xam ku mu doon moi ko ne connais je l'ai bien appris parce que yàlla def na ma ci sama métier bi may yëngu jàng naa def psychologie philosophie ak sociologie te loolu dafa tënku ci théâtre aussi parce que xam nit ki xam ji ko ma ko gën waaw yi ñuy wax ak dafa daw ak dafa nangam nag Sonko musul daw te du nekkul kuy daw billahi wallahi tallaahi comme moom ni mu koy waatee eh, Sonko mi ngi woon këram di nelaw di ba yeewoo kanam gi frais mu génn yore téléphone gis nañ mu def benn sortie boo xam ne ñu bari dañ doon laam-laamee naan est-ce que mi ngi Ziguinchor. mais bien sûr qu'il était à Ziguinchor lan lay daw. bu dawee sax dafay may waxtaan ak wax yu bare bari ñenn ñi nga xam ne gëmuñu ko benn. ak ñi nga xam dañ koy dingat man gis naa benn journaliste bu mag boo xam ne nii moom dafa confirmer dawam ñu xëy yow audio euh, vidéo boobu génn ñu gis Sonko mu jóge ci saalam génn ci biti def doxantu bu daw biir Ziguinchor ñëw nuyu déjà la femme yi nga xam ne nii euh, elle représente la forêt de Ziguinchor elles sont là donc euh, ba pare saafonteeg jeunes yi nga xam ñooy fanaan ci buntu këram ba pare nekk à l'aise dugg ci otom dox dox dox ba dugg ci otom bi mu duggee ci otom jeunes yi seen bopp ñoo ko baare wax ko ne ko doo génn da ngay delluwaat mu déggal leen ba dee mu daal di delluwaat donc journaliste boobu li mu def mooy lan te journaliste bu mag la ñu am confiance ci moom surtout man mi wallahi dama ko bëggoon lool parce que lu mu waxoon rek dama naan dëgg la gongo alors su ma gisee loolu mu confirmer moom ne daw na génn na fii Sonko nekkatu fii yooyu Euh, ñenn ñi di ko interpréter ne que il est dans les forêts de la Casamance ñenn ñi daan ne non non il est vers euh, ay euh, dëkku suñu mbokku Bissau guinéen yi ñii daan ne non non non il a pris l'avion il est parti à l'extérieur ñenn ñi yooyu yëpp ñuy wax vraiment ñoo ngi bakkaar bakkaar yu mag te yàlla du ko bàyyee noonu parce que dëkkal nit ki fi mu dëkkul moom yàlla ah la muy def daal moo ko xam waaye il faut faire attention à Sonko il est stratège mhm. il est vraiment d'une grandeur extraordinaire mhm. euh, accompagné d'une intelligence parfaite mhm. Sonko du nit ko tuuti de xaaral leen rek ngeen ñaan yàlla mu jël réew mi vous allez comprendre le pourquoi yi fi am yëpp dootu fi comme par exemple fooy lu réew ah ñi koy def de yërëm naa waaw ñooñu sax am na ñoo xam ne bu ñu gënte ni naru ñu neexle bu jëlee réew mi ils sont contre lui donc duñ ko mën a accepter koo xam ne sëriñ sëpp fépp eh, ci benn ci bépp kuréel jaar na fa waxtaan ak ñoom sëriñ si ñoom c'est des gens qui sont spirituels mm-hmm. duñu yëkkati ak bëgg koo xam ne nii il vaut rien mm-hmm. donc loolu rek déjà war na may sénégalais ñu accordé wu ci ne c'est quelqu'un de limpide euh, de véridique il ne cache absolument rien moom ci dëgg bi lay jaar jub aussi boole ci xoolal euh, poste bi mu yore woon au niveau de euh, de des des impôts et domaines xaalis bi ni mu fay jaaree mar de tali xaalis bi ni mu fay jaaree mar de tali et il était quoi il était un chef foofu ma xamul lan la joteeg njiitu réew mi vraiment ba mu dàq ko foofu mhm. donc dàq na koo xam ne ku mën liggéeyam la te xam état mhm. xam naka lañu ñuy businessé ba nga xam ne ni fu mu laal rek gars yi duñu nangu wuyu